waaw suñu sony bu de lu ma laajee naa ci sawar ndax ma bunt suñ bunt suñ tuubaa ma nit koo xam ne ni yàlla dafa jëloon lim gën a fonk mais xoraan jagleel ko ko dundam gépp da ko joxoon yàlla ba mu jeex tàkk di jàngal alxuraan di jàngal xam-xam di jar nit ñi nit ñi ci topp seen borom leen yar ci ragal yàlla yàlla jagleel ko mu gane àdduna weeru koor jóge fi weeru koor loolu du jafe kon nag euh, buñ ko dee màggalal ñun dañ cee war a sonn lool ndax suñ bis la danu am lu kenn amut ndax ñëbul suñ tubaab kenn kon lu suñ tubaab sédde kon suñ tubaab séddu weeru koor séddu ko alxuraan kon nag bisa bu dikkee lépp luñ ci mën ak lu mu doon ko def fa seen lee berneel gan ñi leen teeru leen di ci woo sama mbokk yëpp képp ko bokk Sëñ Tuubaa tamit maa ngi ko ci woo ak euh, sama mbokk politiciens yi ñu nekk pouvoir ak ñu opposition ak sama sama am jàmm yëpp ñu ngi leen ci woo bu baax di xamal ni suba gi dañuy jàng ay xasaar wàcceel kaamil ñaan Seex Suhaybu Mbàkke yàlla yokk ay leeram te sàmmal ko njabootam guddi gi ñëpp seen cérémonie waxtaan reer def bi bu quatre heures du matin mu jeex kon nag maa ngi sant bu baax di gërëm di leen ñaan bu baax nañu aaro yéen sama rak nga sama lépp nga li ngeen yëngatu yal na ci yàlla jàppale te dool leen ci ci barke Sëriñ Bàmba jërëjëf